n'êtes pas en Europe, ni en Amérique, ni à Dakar, mais vous êtes bel et bien dans la ville sainte de Touba. waaw yéen a ngi biir Touba ci boutique totale Kër Khadim bi nekk ci route de Mbacké ci wetu banque CBAO bi waaw dañoo élargir suñu boutique ba mu gën a ngan ba noppi it di jaay bépp produit charcuterie ak poissonnerie ñu yokk boutique ba daa di fay def alimentation daa di fay def alimentaire def fa hygiène def fa cosmétique def fa vaisselle def fa habillement def fa divers ak lépp yemul foofu de dafa am gaamu soow soow piir soow mu neex boo xam ni nag ci ay siwo la nekk soow mi mi ngi tudd poroxaan soow boutique kër xaadim am nañ restaurant bu ñu tuddee El Hadj Dame si la ñu koy wax El Dasi restaurant boo xam ne décor ba boo ko gisee macha allah da ngay defe ne yaa ngi Amérique wala yaa ngi France wala yaa ngi Ndakaaru déedéet yaa ngi fii ci Touba am décor am salle VIP bu baax ñu climatiser ko ba mu sedd waaw teel leen a réservé pour seeni conférence seeni réunion seeni cérémonie seeni pause seeni ndaje lu ca soxla rek équipe bu mucc ayib boo xam ni ñëpp liggéey rek la ñuy def ña nga foofu di leen xaar terrasse ba am na pâtisserie am nañu traiteur woo ñu ci 33 976 03 39 77 899 45 45 wala 76 354 44 44 wala 77 583 17 17 boutique Kër Khadim nekk dans la ville sainte de Touba. Ya Allah ya Allah loo ci ñaan may la loo ci mu baal ci la ngëneel yi tàbbee ci la xewal shahru Ramadan ya karim Ramadan ya habib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 ne fi gis ko lekkum tan. maara day taali. ah waaw. Samba kuy lekkum tan foofu. ah kay neex dawal. maara day taali. ah wax na moo tax yéen xamoo leen yooyu ah feetu suñu dëkk man nga fay lekk de. ban dëkk. takku bisaab. laa ilaaha illallah takku bisaab ci dëkk. waaw ma ne takku bisaab ci ceebu jën laa ko xam. waaw comme ñun ñoom dañuy wër ñun Sénégal lañ dëkk yéen nag ay taax ngeen ay taax ngeen xam ñun danoo dëkk ci Sénégal di wër réew mi. nekk ay julo di dem ci luuma yi. moo taxit euh, naa sàcc wax la dégg ndax yow ci kër gi nga ne di sëy. Mhm. ma ne ci kër gi ren nag li ma remarqué ci kër gi neexuma. Mhm. waaye sa nijaay situation bii ma ko gis nii muy dund na ma ko fekkee neexuma de. fee laa ko fekk ne ndax di ko coqataan muy tëb naan ko moom xamul yii loolu war na ko wax. sama nijaay naan ko waxuma la dara la métti gën a métti mu naan ko du sangoog dana xëpp sama kaw rek ak doxa bu xam nga ne boo boo sanguwut day xeeñ. sama nijaay wax loolu moo ko wax. sama nijaay la yu mel. taman ba ma toogee fii ba léegi lu neex rek nga may xeeñ. loolu de ay waxam la sax. fekkuma ko yëpp mayuma jàmm. waxuma ko nag waaye maa ko dégg mu koy wax. loolu kay mi ngi mel ne wax na la ko rek ndax dégg nga ko. loolu war nga koo lijjanti de. na xam fii la may fekk man. julli jot na daa mel ne de. julli jotagul de des na eh. Eh, ko nar a jàppoo jeeg ju baax yëpp ñu ngi sëy sëy mu baax mais nag li ma lay xamal bariwul li war fa Njaay di wax rek ku ñuul sa jëkkër rek yàq say doom. nijaay dimbali ma tàmbaleeti nga yow laay waxal bul ne wax yow laay waxal yow lii lan la nijaay xanaa yow man maa war a wax yow waxatuma ngay wax may ma sama jaam bi nga takkee sa ñaari ba ba tey mayoo ma jàmm mayoo ma salaam. waaye yow nu ma neex laay def yow doo am jàmm ci kër gi jéeg liggéey na ci kër nag ba lamal doomam ca yëgu ci dara jéeg liggéey na ci kër ba jaay doomam ca yëgu ci dara te su ma bonee rek yow yaa ma bonal neexoo ma dara man sa pëndaxu jukka dara ma ci neexul yow foofu nga ko réeg rek fi la boo defutoon nii ma rus jigéen fulla te damaa bëgg nga xam ne ba léegi ab séet nga ma ba léegi sax ab séet nga tawaykat ba dafa amoon lu wax ca séet dégg nga dana dafay sangu booleeg sañ sa tey di njoccu tey soccu tey cuuraay tey seetu. maam Boussa li ma lay li lay dolli moom lu néew la rek mooy nga góorgóorlu ci sa sëy te bés bu la saytaane ma ne ba nga juyoog ay wax sa borom kër su boobaa bul rëy mukk tuubal ko dellu si waat ci moom te xam ne li fekk ngay jóog sa kilifa na nga xam ne yàlla rëbb na la loolu moom amul lenn loo xam ne ka am na lu ko kawe njor na nga ci góorgóorlu bu baax. te jéem a góorgóorlu te sëy te yàlla rek tax rawatina koor gi. nijaay eh, ay nijaay baal ma àq nijaay wax ji ma la wax sànq maa ngi koy tuub bu baax di ko jéggul nekk lu ma gën a seytaane nag fu nekk lay jóge maa ngi tuub te sàkku nga baal ma nijaay ndax wax ak yow du sama cër nijaay weeru koor bu ñu nekk kenn ku nekk yaa ngi tar biir sa borom kër ndax am doomi barkeel maa ngi jégalu bu baax a baax di sàkku nga jégal ma. waaw dinaa ndax yéen natu kenn du leen topp ci seen jikko jéggal naa waaw waaw man man ndax damay bëgg a waaram damay bëgg a jommi détournement de dernière minute yi kañ la fi xew ah. ilaaha illallah waaye kii moo bon. billaay yaa sew jikko yow de bu doon football ma ne la am nga carte wu bon woo xam ne ku am ne noq ca